dalleen ak jàmm ñuy doore tour du web bi ak tournée économique bi nga xam ni njiitu réew mi mi ngi koy amal ci bët gànnaaru ko réew mi Sénégal di ñu xamal ak ay photo yoo xam ne nii mi ngi fang ci ay page bu njëkkam ni këruk njiitu réew mi di président Macky Sall nekk ca ndullumaa ji dañu ko lakk tournée boobu ca la ñuy des ak IGFM ak Dakar Actu ñu ñuy xamal ni ca yoon wa woto ba Abdoulaye mbay Pekh duggoon ak kii di Modou Bara Dolly bu APR dafa këppu accident bi mu ngi amee ca wetu Wuduru ñoom ñaar ñépp ñu génn ci ak ay gaañu gaañu leeral di ca yokk ni Abdoulaye mbay Peex ba mu ximmilu ko la mu xamle moom moo di ndogalu yàlla la mbirum gone yi lab ci géej gi ci jamono ji IGFM site groupe Futur Média bi di ñu àggee kàdduk député Mamadou Lamine Diallo mu ñuy xamle ni plage yi nga xam ni mooy yu baax yi ci jamono ji dañu ko jaay maanaam dañ ko privatiser li fi des ay plage yu metti la yoo xam ni ni gone yi dañ cay dem te amul gennu kaaraange mbirum Baye Modou Fall alias booy Djiné jawriñ jiñ dénk lépp lu jëm ci wàlluk yoon di garde des Sceaux daal dina ci àddu Malick sàll di xamle ni kii di booy Djiné daanu ko jugé ci lu mu yàggul dara naam sax su fekkee nee na la ko dal ma ngi koy mettitlu waaye nguur gi dana def la ko ci war ñu deful la leen war mooy lenn ci ay ndongo yoo xam ne nii ñoo ngi nekk ci daara ju mag ji ñu duppee Cheikh Anta Diop Seneweb ak Senego ñoom it ni fang ay photo wane ay étudiants yoo xam ne nii dañoo foqar ñi lii di micro bi ci ab jàngalekat ci jamono ji ngay xam ni ñoo ngay def cours ci biir amphithéâtre ba ñu yër Seneweb mi ñuy xamal ni lii di mbas mi di Covid 19 laal na bu baax a baax lii di àcc yi nga xam ni moom la jullit wala kercen yi di amal gannaaw ba ñu gàntalee li nga xam ni rek moom moo di ajik màkk gi Seneweb di ñu xamal ni ñu église bi daal di nay dàq pèlerinage ci lieu saint de la chrétienté maanaam bërëb yi nga xam ni ca la mbokk kercen yi di demuk acc ñu jeexale ak wàlluk tàggat yaram ak IGFM mi ñuy jox résultat match France Allemagne jëm ci wàllu euro 2020 mu ñuy xamal ni ñu ñii di bleu yi di maanaam waa France daan nañu waa Allemagne benn bal ci dara jageen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem